eh teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock Fils de Balla le 14 la incha allahu rabi novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxana bi. dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxase ak sénégalais dama lay duma daan la. wala xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la moroom muy forcé nii mais le 14 août la xam ne ba si góor a koy bay a ah, mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production la 14 août Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4,99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août arène nationale Fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti maa ngi lay maa ni combat soog la woon ñëpp di euh, général de Malika mooy favori ñu gis nga ñëw bëre ko bëre bu rafet daan ko tey ñu joxaat la góor a soog ñu ni góor a soog soog la ñu gis encore ni nga entamé combat bi wan ko ni ko da nga bëgg a xeex. ngeen départ a xeex nga njëkkanteeg moom jàpp ko ba pare bàyyiwuloo ko mu jekkati di jekkati ba ni mu daanoo ban secret nga am ci mii luur yi nga xamante ni ku leen daan dem ci kaw ban secret nga am ci ñoom ba di daan. père avant tout damay sant waa Géejawaay bu baax a baax di sant sama papa lépp Balla Gaye de sonn ci làmb ji. billaay wallaay Lamine làmb ji nañ doon taw sax taw waaw si taw ñuy entraîner hmm. barki Serigne Touba day taw ñuy entraîner. ndeysaan lépp pour bëgg ndam. billaahi wallaahi ñun égalul Balla Gaye leen lu dul suñu secret muy entraînement. Hmm. di sant suñu coach bu baax a baax Lamine Golo ñu koy sant bu baax sonn na ci làmb ji mbës sonn na ci Youssou Ndour waa école de lutte Balla Gaye su ma limee leen di sant ñoom ñëpp rawatina waa Géejawaay di sant tamit Bousse sëñ Bamba tey jëndal na ma ay yu bari la jëndal. maa ngi koy maanaam daal yow entraînement bu métti nga leen di daane. boo xoolee xam nga ñoom la moo leen leen wax. sama yaram moo leen di nax ndax bu ñu gisee sama yaram dañu naan ak kii ab pata la te fekk ne dañoo entraîné ba am doole. dëgg la kii ànd ak Balla mhm. bañ am doole. loolu rek mooy suñu secret. léegi ci sa kanam ñan nga soxla fi ñu toll nii. Yékini Junior laa soxla su ma ko so bu bëriwul du ma bëree keneen. ah Yékini Junior. Yékini Junior. Yékini Junior. génn gu ma foofu maa ngi foofu. Franc nga fa de Franc laay xaaroon Franc laay yàqamti ma mu dem dem Forza. <laughs> Franc laa soxla woon. Franc moom 2 tapet moo tax mu. léegi bu bëree <laughs> mais mais Lamine Seck dama leen a dajaloon moo góor soog ci live Instagram ma laajoon leen ñoom ñaar ñëpp ma ne ko Fils de Balla sa góor soog combat la boo xam ne yéen ñaar ñëpp da ngeen daje mais Fils de bu su fekkee sa ngemb sa loxo dafa dugg ci ngemb góor soog mu ne ma fa daan kon làmb ji jeex na Fils de lan moo taxoon nga am ngëm-ngëm ne boo jàppee góor soog làmb ji jeex na. Fadam mbër yi nii laa wax ba ci mbër yi mag yi ku si jàpp sa ngemb foo daana ngay xool. moo leen gën a féete xale ëpp leen kàttan loolu la yàlla dogal man man Balla Gaye nuyu suñu làmb ji de mooy wane affaire ñàkk fayda wala affaire yaafus ndax ñun meluñu noonu suñu patron gaynde laa gaynde moo tax ay tànkam lañ jël Balla tey gis nga tey làmb ji nu mel tey boo ko gisee sama jom day gën a yokku tey ndax tey duma ko gis ni naan damay daanu xalaatuma ko sam àdduna parce que sëñ maam ndax loolu nag sas la Balla Gaye c'est la première fois ma bëre mu ñëw isaat kon loolu sas la duma ko mës a yàq di sant tamit mbëri waaye ku si mel ne guy gi Sa Thiès Abdou Diouf guy gi liiru ñaan suñu mag ñu ngi koy sant bu baax di ko teg nuyoo bi di ko teg ci loxoom soko sim maa ngi koy sant bu baax doy jógee tëngeej ba ako Géejawaay di ñëw di ma jàppale si contact maa ngi koy sant bu baax a baax waaye fi ma jëm làqatuwuma Yékini Junior laa soxla su ma ko bëral ma bëri keneen Yékini Junior laa soxla soxla ma keneen. Ah, kon Yékini Junior da nga lay dégg de. ñaata Yékini Junior am si làmb ji. <laughs> benn moom laa su ma ko amul du ma bëre. mais yow dafa non am loo ma waxoon. maa ngi parcelle. dafa am loo ma waxoon. waaw nga ne ma ñiy bëre ci simple bi. waaw nañ ma jox par benn benn. waaw tey nga ne Yékini Junior doo yem ci waa simple rek. si yéen. ñiy bëre bëre bi nañ ma leen jox par benn benn. simple simple damaa doyal si ñoom daan naa si ñaari yoon. daan naa ñaari simple so damaa sonn si simple bi. ah. Mhm. dégguma. damaa sonn si mbëru simple yi. ah waaw. lutte avec frappe rek. mbëru si arène rek Yékini Junior rek. Hmm. waaw moom laay bëril. loolu de kenn mënu ci dara nee na Yékini Junior rek. Hmm. waa xam nga mbër day toll foo xamante ni su daanee maasam day jéem a dem ci kaw seeti ña fa nekk mu dajeek ñoom Yékini Junior amul komba moom daan na góor soog tey kii kenn mënatu ko bañ ci làmb su ko laajee jaadu waxal. waaw sa sa. waaw digganteem bu yarax Moussa Ndoye amul combat te xale bi def na ay percé def na ay ay exploit am la def daan ñaari ñaari génération yu am solo diggante mu ko Moussa Ndoye mën a may sens combat bu neex la digganteem ak Gene Kairé diggante Guédiawaye ak Ndakaaru lay doon tamit mu nekk combat boo xam ne tamit làmb soxla na ko waaw. lu yëpp ay làmb la man daal ku ma laam boole dinaa am maa ngi sama loxo sama papa Aziz Ndiaye ak Kanji production ak Matar Ndiaye képp ku bëgg sama combat si ñoom ngay jaar rek boo jaaree foo mooy loolu. waaw ci promoteur bu jamaïcain promoteur bu mag bi. waaw maa ngi sant bu baax ndax sonn na ci combat bi. waaye nag fu ne. yàlla dafa dogal bii moo nekk dernière journée ndax Batika nee na na ñibbi kambi gi Lamine am na loo fàtte de. non du ah, na na ñibbi kambi gi. Lamine am na loo fàtte. jam waaw am na loo fàtte. mais bul fàtte ne diggante ak maam la bi dafa ah. yàqu. noonu. bul yàggale sax soxla wu ma dañoo fàtte woon. déet mënoo bañ a jël mënoo ko bañ jël. bëriwu ma ak koy jël. bëriwu ma ko. da koy jël soxla wu ma ko sax. di ko jël de. mënoo bañ garga soxla wu ma garga deux. Ah. garga deux maam eh eh da ngaa dugg partel te génn goo partel. déggoo li ma la xanaa 10 millions soxla wu ma na ma bu avance bi ñuy bàll dina ko jël leer na de. digganteem ak doomu dàngu nag. bëriwu ma ak ñëpp <laughs> Yékini Junior laay bëreel wala Moussa Ndoye ñooñu laa soxla. ñi ngi fi wax ñi ngi fi bañ nag mënoo leen a bañ. bëreewu ma ak ñooñu mënoo koo bañ kontaan nañ ci yow. kontaan nañ ci yow bu baax a baax ñu bàyyi la tàggatoo. waaw da ngay yedd yeen bu diis del yedd yeen bu diis. yeen bu diis dee ko yedd. gommaa bee ko ëpp doole rek moo tax mais damay sant tamit bu baax a baax sama patron Lat Diop. Lat Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax tey bu nit ñi ñëw stade yàlla ak moom la moo si jàpp jënd billet yëpp maa koy sant bu baax di sant sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax baay Ndiaye Ndiak Khalil Sora Badou aw ma seen fay buuse yàlla na sa jàmm yàgg sonn na ko ci làmb bu baax njambaan waa géejewaay mbaru géejewaay yi aw ma seen fay soog a sim. maa koy sant bu baax. sa waay ngi ne doomu la. doomu nday liiru. góor. <laughs> sama xarit yi sama xarit yi ma. ànd mais mais mais mais Serigne Ndiour a ngi nii ah bu Balla. Serigne Ndiour a ngi nii sa ginnaaw. di di sant tamit waa diaspora bi bu baax. ku ci mel ni Serigne Ndiour. keroog dañoo fekk dafa maa fekk kër Balla Gaye defal ma teraanga dama am mbër jàppal si combat bi. te c'est la première fois ñu gisante maa ngi koy sant bu baax di sant waa diaspora bi sama père père Mouhamed Ali Ndiaye maa ngi koy sant bu baax jàpp na si combat bi sonn na si chaque instant mu woo ma sant tamit sama xarit yi sama xarit yi daanaka deux mois deux mois max ñoom ñooy fanaan maa leen di sant bu baax ak waa koñ bi ma dëkk di sant waa géej waa yëpp yëpp yëpp yëpp su ma limee dinaa juum. kenn du Serigne Ndiour. ñëpp maa ngi sant di sant tamit sama père Omar Wade. ah Serigne Ndiour day may ay code kenn moom. Serigne Ndiour ngi koy sant bu baax yokku lamb la. moom aw ma fayam jàpp na si lamb bu baax moom Serigne Ndiour di sant tamit waa école du Balla Gaye di sant Balla Gaye déw bu baax a baax a baax moom dama koy sant ndax moom sama lépp la sama papa la sama lépp la aw ma fayam su ma waxee si moom fii laay fanaan. di sant tamit lamin di la sant di sant promoteur bi Jamaïcain di ko sant ndax sonn na ci làmb ji fu ñu dugg na fa ñu bëri woo nañ ko di yàq te sama. léegi bës jërëjëf bës li jëntil ma Modou Baye Fall Modou Baye Fall mu ñëw parce que dañu war a egg. waaw waaw waaw Lamine. waaw damay jaale tamit sama ñaari boo yoo xam ne dañoo gaañu waa Konis Patal maa ngi leen di jaale seen waa kër bu baax a baax ak Ahmed Kara di leen ñaanal bu baax a baax a baax a di siyaar seen waa kër yi bu baax. ah ak Ousou tamit Ousou ah Ousou sama xarit bi xam ne tiset bi moom la ko defaral kii maag moom xale la ba léegi chaque jour ñoo doon ànd maag moom di sant seen yaayam maa ngi koy sant bu baax Xalifa Ñaam maa ngi leen sant seen waa kër di sant ñëpp maa yuma kenn kontaan nañ ci bu baax a baax merci beaucoup jërëjëf Omar kontaan kontaan ci yéen eh teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock Fils de Balla le 14 août la incha allahu rabi mbaxana nag le 21 novembre dañ ko yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxana bi. le 14 août dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa yara ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxase dama lay duma daan la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août ñuy xam ne ba si góor koy bay ah mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production la 14 août. Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu. kéwén laay jël daal di koy boole ak Jokkel. mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee. yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4,99 euros ngeen ko mën a seetaanee. waa Sénégal 2000 francs dong. kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août. arène nationale Fils de Balla ak góor Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti.